الأخلاق الحسنة وهي التي تجمع في محتواها شتى صنوف الفضائل من كريم الصفات وطيب الأفعال bu ñu waxee jikko ju rafet mooy li nga xam ne dafa dajale ci biir lu wuute ci ay xeet wala buñ ñu waxee jikko ju axlaaqu sayyi'a buñ ko tuddee jikko ju rafet wax nañ la ne mooy dajale lépp mbaax al al axlaaqul as xasana laa toll bu ñu waxee jikko ju rafet mooy li nga xam ne dafa dajale ci biir lépp luy ngëneel ak tedd nga ci ay wax ak ci ay jëf bu ñu ne diw mii jikkoom rafet ni ki mu doon mooy ki nga xam ne jëfam yi day rafet waxam yi tamit day rafet mooy borom jikko ju rafet mënuñoo wax ne nit ki jikkoom rafet na te fekk jëfam rafetul ay waxam rafet mu ne wal axlaaqu sayyi'at wa hiya aksul xasan wa tajmau fi muxtawaaha shatta sunuufi radaa'ini wa qabiici al bu ñu ne diw mii jikkoom rafetul mooy ki nga xam ne dajale na ci biiram lépp luy xeetu caay-caay waaye dajale na lépp luy jëf yu bon bu ñu gisee nit ki muy def lu bon kooku dañuy jàpp ne jikkoom yàqu na comme ni nga xamee ne bu ñu gisee nit ki muy def lu baax dañuy jàpp ne jikkoom jag mu ne wa min amthilati al axlaaqi al xasana al adlu wa sidqu wal karamu wal iffatu wal xayaau wa tawaaduu wa shajaatu wal isaaru wal xilmu wad damiru wal wafaau bil uhudi wal uqud mu joxe ay exemple ci jikko ju baax bu ñu ne nit ki jikkoom baax na yii ci ay qualité day nekk ci moom boroom jikko ju baax bi ci njëkk mooy day nekk ku maandu munuñ laa tuddee borom jikko ju baax te fekk maandu lan mooy maandu mooy kenn ku nekk liy cëram nga jox ko ko ku ne liy cëram nga jox ko ko borom jikko ju rafet day maandu bokkul ak maandu ni ko càmmee di firee bokkul mooy boo gisee kuy def naka sudul noonu nga ne li ngay def naka sudul noonu ñu ne maandu woo fekk dañuy jaawale diggante maandu ak njàmbure du benn dafa am njàmbure ak maandu lan mooy maandu mooy ku nekk nga jox ko ci cëram beneen bi ci jikko yu baax yi mooy dëggu dëggu qualité la ci qualité yu baax beneen bi mooy tabe ci jikko yu rafet yi la bokk beneen bi mooy fegu fegu fegu ba lépp luy tax yàlla duma la ëllëg nga dawaliku ko borom jikko ju rafet day góorgóorlu ba conscience am jubóog moom li wolof naan ma waxtaan ak sama ngegenaay da ngay fexe ba heure boo waxee sa ngegenaay du la yett qualité la tamit du tricher Jamil conscience du tricher leer la ko yàlla def ci biir xol pour muy corriger nit heure boo tuumee Damir dana la ko wax benn nga nangu ko wala nga bañ fexe ba jubóog sa conscience qualité la beneen bi mooy lool digg def ko sàmm kóllëre sàmm kóolute sàmm kóllëre sàmm kóolute moom it qualité la ci qualité yi wa abdaaduha bi tartibi safaanu jikko yu baax yi ci toftale mooy jikko yu safaanu yi adulmu alkazibu albuxlu alxissatu alfujuuru alkibru aljubnu alananiya alxadab wancidaamu damir walxadru wa naqsul mawaasib yii mooy safaanu jikko yu baax suñu waxee crise des jikkoom yàqu na day fekk mu dajale yii bi ci njëkk mooy mu nekk ku ma a tooñ jikko yi bu yàqoo nit bu jikkoom yàqoo tooñkat lay doon tooñkat lay doon ci waxam ak ci jëfam nit bu jikkoom yàqoo du wax ci dëgg mooy safaanu sidduq bu ñu ne sa jikko baax na da ngaa dëgg bu sa jikko yàqoo doo dëggoo ci lan mooy safaanu dëgg mooy fen bu jikkoom yàqu du wax ci dëgg beneen bi mooy al buxlu wal xis mooy nay ak ngott nay ak ngott ngott bu xam ngeen ngott de ak a bon ngott am na koo xam ne nayut mais daa ngott xam nga ku ñëw fii ci journée solidarité bi yor fukki junne ñuy laajte nga joxe 1000 francs kenn gënu laa ngott nayoo nag da ngaa ngott mooy xis sa baaxul wala déet maître ma soxna boobu ndax baax na yore cinquante mille ñuy laajte nga génnee mille francs naan leen ma sax léeg-léeg boole ci jël ci cinq cent jël ci cinq cent moom it di jukko ju baax doo nekk yàqkat mais doo nekk ku ngott safaanu ngott tamit mooy yàq yàq jigéen ju ngott bu toggee kenn du rekk waaye yàqkat mooy togg nit ñi lekk bay tuuri loolu yàq la bu ci nekk baaxul beneen bi mooy su fekkee nekkoo ku fegu safaanu iffa mooy alfujur mooy kàccoor kàccoor ci alalu nit ñi kàccoor ci lépp lu la yàlla xaraamal nga sëgg ca ci njaaloo ci sàcc bari na lan moo tax nit ki nekk alfaajir mooy ak fa nekkul ci moom beneen bi muy attawaadu muy modestie wàcce sa bopp muy qualité bu crise des valeurs amee nit ku nekk boppam rek lay gis mooy day rëy du nekkati ku wàcc du jàpp ne war naa defal kenn benn service mais ñëpp ko war a defal service bu ñëwoon fii tey ci conférence bi am ñu toog fii ci kaw moom ñu teg ko ci suuf mu gis boppam ndax lan dafa rëy dafa jàpp ne moom doo nga war a nekk ci kaw su ñëwee ñu jox ku ne mu wax moom joxuñ ko mu yëg boppam ndax lan dafa jàpp ne moo war a wax ñëpp déglu rëy a nekk ci moom jikko ju yàpp la ba mu jeex ba mu jeex beneen bi mooy bu nekkul ku jàmbaare day nekk ku ragal al jub day ragal day buqat te xam ngeen ne mu mujjug jamono la ñu nekk ku bëgg lu baax boo amul fullaak faydaak fit ku bëgg lu bon xoqatal la nga reculer danañ la tëkku danañ la móolu danañ la saboote danañ la danañ la lan moo lay dimbale ba mbaax gi nga tegu doo teggi sa tànk mooy njàmbaar su fa njàmbaar nekkul lu fa nekk al jubnu mooy buqat mooy buqat musiba la dañu ne ñetti buqat ya dañoo dajee ca àll ba ñoom ñetti nag ku gën a buqat sa morom rek ñu ne kii la kenn ki toog moom yàgg mu ne waaye saa waay sa bëri xonq na de keneen ki ne ko xii xii li muy xonq xonq de yaa ma kenn ki tontu ko ne ko ah su ma la mënee tamit ne du la dóor mu delluwaat tontu ko ne ko soo ma dóoree tamit ne du ma fayu foofu jàmm fa yàq bu ñëpp buqat baax na ndax dana jur jàmm ci yenn côté waaye dana jur musiba ci ku nekk ci lu bon bu amee fit ku nekk ci lu baax ragal ku nekk ci lu bon fu mu amee fit ku nekk ci lu baax ragal rek yàqute jub al isaar mooy loo am xañ ko sa bopp jox ko sa morom safaanam mooy al ananiya mooy égoïsme moom it défaut la mooy koo xam ne gisul lu dul boppam lu baax lépp daal nañ ma ko jox sama yoon nekku ci égoïsme mooy su ma duggee ci tata bi na ñëpp taxaw mais man naa toog rek sama yoon nekk mag mu ñëw taxaw bay miiri damay sëgg nelaw nelaw la mais du ma jox sama sées jox la te yow boo tolloon ci aasam boo duggee xale bu la mayul nga toog nga ne xale yi léegi amuñu yar mbaa du xale bi dalay fay sa bopp égoïsme musiba la mooy koo xam ne boo ci génnee daal sa yoon nekkul ci gaañi bu ci kenn génn yow daal bu weer dee nga fayeeku sa yoon nekkul ci ñeneen ñi buñ fayeekuwul yow daal boo demee ran ci mbir mu nuy joxe ba jot ci sa yoon nekk ca ñaa ran jotagunu nga jëm leen a encadré ba nu jot yow daal sa bopp rek nga yëg loolu jikko ju yàqu duy manifester la ci doomu aadama beneen bi mooy nit koo xam ne conscience du ko déggal maanaam du déggal conscience am bu sa jikko yàqoo sa conscience buy wax ak yow too ko faaleeti am na ñuy wax borom xol bu wow ku xolam di dund mooy déglu conscience mais bu sa xol dee too déglu sa conscience day wax nga félatal lii baaxul waroo koo wax nga ne ko sama yoon nekku ci lii baaxul waroo koo def nga ne ko sama yoon nekku ci lan moo ko indi mooy sa conscience nga déglootul màndarga yi jikko ju yàqu lan mooy safaanu matal kóllëre mooy wor mooy wor bu sa jikko baaxee da ngay nekk koy sàmm kóllëre dangay ngay respecté sa kàddu dangay ngay bàyyi xel li nga diggee nga def ko mais bu sa jikko yàqoo sa yoon nekkatul ci yooyu da ngay nekk kuy fecc kóllëre loo wax doo ko def loo diggee doo ko def te loolu mi ngi fees dell tey ci société bi. koo dégg mu ne sama yaakaar dafa tas rek am na ko tas yaakaaram ku mu kan la ah te léeg-léeg kat penckatu kóllëre bi moo dàq julli ci jàkka ji waxtu du ko raw moo dàq ubbi kaamil di durus di nafar moo dàq yor kurusam di tocc toccal waaye lu mu wax du ko def ku mu fasanteel kóllëre fecc tey woote woo ne maa gën a doon jullit kon crise des valeurs bu ñu waxee jikko yu rafet safaano jikko ju rafet rek mooy crise des valeurs mooy jikko yu yàqu mu ne waaw qad yatasaa'alu al-qaa'il limaadha saa'at ahwaalu al-muslimiina wa ishtaddat alayhim al-mihanu wal-ibtilaa'aat wa limaadha asbaha al-muslimuuna hadafan lil a'daa wal jawaab wal jawaab faqad qarrarahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam فيما صح عنه من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها قال قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ qaala antum yawma idin kathirun walakin takunuuna gusaan ka gusaai sayl tuntadacu almahabatu min qulubi aduwikum wa yujcalu fi qulubikum alwahnu qaala qulna wama alwahnu qaala xubbu dunya wa karahiyatu almawti mu ne aji laaj dana laaj ne waaw lan moo tax tey jikko yi yàqu ci réewu jullit ñi ci biir jullit ñi ñu bari dañ koy waxtaane man daal yéemu naa tey ñii woote woone ay jullit lanu te lu bon yëpp ñoo koy def lu tax ay jullit ci seen dëkk fi la baar bare lu tax ay jullit ñooy uti carte di jaay seen bopp lu tax ay jullit ñooy lekk riba lu tax ay jullit ñooy yàqante lu tax ay jullit ñooy sosal seen mbokki jullit mu ne aji laaj dana laaj lu bari laaj yu mel noonu ne lan moo ko waral lu nekk ci ginnaaw crise des lan moo ne ci ginnaaw yàquteg jikko yi lu làq ko ci ginnaaw yàquteg jikko yi ak lan moo tax tey jullit ñi seen noon yi di leen fooye lu tax tey jullit ñi seen noon yi di leen fooye tey réewu jullit ñi Occident yi ñoo leen di manipuler maanaam seen noon yi ñoo leen di manipuler ak doole ji nu am alal ji nu am pétrole bi nu am gaz bi nu am yëpp teewul yéefar yi ñoo leen di wax fan ngeen di jaar ñoo leen di rëddal fi nuy jaar lan moo waral loolu mu ne aji laaj te dana ko laaj te dana jaxase xelam